a ngi fi nga xam ni dañoo woote assemblée générale gis ngeen la forte y a eu aujourd'hui à nous avions prévu def ko sax ci salle bi mais sa xajul ci salle bi les populations les électeurs les militants de Benno se sont déplacés vous avez vu tous les responsables donc loolu li ko waral mooy Sénégal dafa am chance am ci bopp réew mi le président Macky Sall liggéey liggéey ci fànn yëpp nag ci plan Sénégal émergent xam nga ni bi muy soog a ñëw kuy kamat da doon am kuy kamat amatul 500 mégawatts 1200 1700 mégawatts xam nga bi ñuy soog a ñëw autoroute yi parewul woon 32 kilomètres am nañu ëpp loolu ak li nga xamante ne def ci wàllu pont ci wàllu auto pont ci wàllu port ci wàllu aéroport ci wàllu école yi ci wàllu université yi loolu mu def lépp nag filets sociaux yi moom la de moom moom la ci boole pour euh, couverture maladie universelle carte d'égalité des chances mais également euh, bourse de sécurité familiale ah, donc loolu lépp dans un cadre de paix et de sécurité nga xam ni aar na suñu réew looloo tax bi nga xam ni mënoon na sax présenté waat mu ne duma ko def ñu ko ciy gërëm nag parce que c'est un très grand homme qui dépasse même Sénégal au niveau international ñëpp a ko teg bopp léegi alors muy nag ñu tànnal kenn parce que loolu ñoo ko ko sant ñoo ni ko koo ñu tànnal kooku la ñuy àndal mu tànn Amadou Ba premier ministre mu am ay qualité pour continuer liggéey Sénégal tiise ko ba à l'horizon 2035 ñu egg émergence moo tax loolu nag dañuy toll ci phase parrainage bi ñu lancé le parrainage def ko au niveau régional bi passé tey Tëngéej moo woote yaakaar naa Tëngéej bokk na ci premier département yi woote pour parrainage jot nañu suñuy fiche séddale nañ ko ci département bi képp ku ci war a am di nga ko am ci commune yi li nekk liggéey bi moo des liggéey boobu nag ñu ko def dans les jours à venir wax naa commune yëpp les onze ñu réunion pour commencer parrainage bi sous la supervision de tous les responsables ici présents ma leen di gërëm ma ne ñun dinañu parrainer lu mat cent cinq mille parrain ko génne ci département bi c'est un objectif minimal li ñu bëgg nag moo ñu dépassé ko sax mais objectif bi loolu jërë ngeen